asalaamaaleykum Sénégal man la wuli wuli waat dama maa ngi wax mbir yëpp nañu abone ci wasaare lam parce que wasaare lam am na solo jël lam boo wasaare ko ci réew ak bitim réew waa li neexut ci wasaare lam Sadio ngeen jëf mbokk yi seetaan Wassare Lamb ñu ngi leen di nuyu bu ngeen gisee ñuy taxaw nga xam ne mooy finalu luur bi nga xamante ni moom la jag si woote fii ci terrain gaal gi mu des ci pakala ak ki nga xamante ni mooy Serigne njaay bu Faas Ngor ñaa moo jël lese bi kon ñu ngi noonu di présenter ñi nga xamante ni mooy Pakala ak Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye nag lamb ji passé moo demoon final bu jag si tëggoon Pakala bii passé Adrien Senghor moom moo ko jëloon kon ñoom ñaar ku ci nekk final bi passé yaa ko jël final bi njëkk. kii moo ko jël di Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas deuxième finale bi Pakala moo ko jël kon ñu ngi présenté mbër yi Serigne Ndiaye moo yëkkati loxoom noonu dëgg la kookoy Serigne Ndiaye Pakala moo jël adresse Senghor kii jël fi nga xamante ni mooy arène nationale moom Serigne Ndiaye trois yi njëkk am fii ci Dakar. kii moo jël luur bi njëkk bi jag si tëgg arène nationale moo jël bii paase fii ci terrain gaal gi mbokk yi noonu lay demee arbitre bi sifflé na sëriñ Ndiaye numéro 2 bu faas wan leen ginnaaw ngemb ngemb bu verte bi am vax bi ci suuf Pakala bu mbuur moom ngeen jàkkaar lool noonu sëñ Basirou ñoom ñaar ñooy poids lourd final bi nga xamante ne moom la ñu tëgg ci terrain gaal gi sëñ Bas looy wax ci loolu. jërëjëf Baye Djili nuyu naa la comme ni ma koy defee saa su nekk ziar la ñaanal la jàmm ñaanal ko ñi nga xam ne ñoo jël seen i gët comme ni ma koy waxee dénk ko waa wasaare làmb ne leen fii la ñuy informé woo lépp lu soxla ci làmb yéen ñu koy jox yéen sunu abonné yi ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan na ñeneen ñëw ndax nag. fii la muru fii la muru mi xoyom xoyomee am na koy wax ma ne fii la galaas gi formé ma ne jàppante nañ fii la dax gi jàppante nañ Serigne Ndiaye ak Pakala waaye dëgg la sëñ Basirou Serigne Ndiaye Pakala solonte nañ jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ Serigne Ndiaye ak Pakala Serigne Ndiaye nag Pakala moo ko jiitu ci làmb waaye moo gën a xale Serigne Pakala jàppante nañ Serigne Ndiaye na ko bu sulu Pakala bataan na rëpp na kaata bi wër na ko mu ndomba daan na ko Serigne bu faas daan na Pakala sëñ Bas station boo noppi waay loo noppi sëriñ loo yëg bay jooy loo yëg sëriñ Ndiaye sëriñ Ndiaye jël na final bi sëñ Basiir borom mbég nekk taar mi sëriñ Ndiaye jël na final bi sëriñ Ndiaye sëriñ Ndiaye mu ngi sol ay yéreem sëñ Basiru gis nga Serigne Ndiaye final bi jag si tëggoon moom moo ko jël mu jëlaat beneen final bi Serigne Ndiaye loo yëg. sant yàlla bu baax waaw. bay sant bu baax. ñu waral nga daan pakala jooy. waaw non dara. la sant rek wax. Serigne macha allah bi passé ñu tëgg yaa ko jël bii nga jëlaat ko lan mooy sa secret. waaw alhamdulilah. waaye sant yàlla sant may àndal bu baax sant suma dëgg suma écrit. jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen li nga xamante ni moo amoon fii ci terrain gaal gi waaye nag wéetuma ci benn yoon dama cee ànd ak sama xarit sama doomu ndey sama lépp muy sëñ Basiirou borom mbég mbég taar bi bàyyi lay ziar. bàyyi ji li maa joomi ci làmb est ce que xam nga ne làmb ci wax dëgg la la dëkk xam nga dañuy naan làmb waxul dëgg. sport waxul dëgg. waaye tey làmb wax na dëgg. lu tax nga confirmer lool waaw damaa gis bi saison bi ubbee ak léegi nii mbër yi nga xam ne ñoom ñoo présenté wu ci final di confirmer ñooy confirmer ba léegi. Serigne Ndiaye mii bu ñu ko gisee keroog bi jag su organisé woote la mu fa def euh, dem ba final jël final ba. tey mu ñëw confirmer fii nii ci terrain gaal gi demaat finalu Jax finalu waat ko jëlaat drapeau bi ñu gis pakale mi nga xam n moom la nekkandooloon fii nii ñu doon bëre final bi hmm. keroog ñu ngi ko fekk fële ci Adrien mu bëree fa final jël final ba tey fii nii ci at euh, ci euh, gi nga gis ko mu ñëw final encore donc mbër yi nga xam ne ñu ngi confirmé di wone forme yi ñu amee woon bi saison bi tëjee ñi nga xam ne nelawuñu woon bi saison bi tëjee gis nga ñoom ñooy confirmé ba léegi kon danga nga bëgg a wax ni Serigne Ndiaye bi saison bi tëjee moom da saison bi moo tëj waaye moom mu ngi woon ci ay entraînement am ndax boo gisee forme bi mu indi ak ni mu mel ni mu defee saison bi moom ak Pakala kon da nga bëgg a wax ni ñoom ñu ngi ci entraînement yu wër fekk ñu leen ñuy entraîner gisuñu leen ñuy entraîner mais état de forme bi ñu am ci ouvertir saison bii euh, mbër mu ko am mu ne rek xamal ne daawul tëdd di nelaw ci saison bi bi saison bi tëjee muy pakala mi ñu gis gis ko ci forme bi mu nekk te boo xoolee mbër yi mu fi nekkandool nii yëpp di ànd ak ñoom di finaaloo ak ñoom moo leen mag fuuf moo leen jiitu ci làmb Serigne Ndiaye mii boo gisee état de forme bi mu am nga xam ne daawul tëdd di nelaw mais boo gisee aussi euh, ku ci mel ni général Malika gis nañ ko bërki démb forme ba mu fa indi dem demi final donc loolu rek da lay firndeel ne mbër yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey dëgg dëgg dëgg fruit yaa ngi commencé feeñ ci ouverture saison bi fruit yaa ngi commencé feeñ ci ouverture saison ñu taxaw seetlu ci ki nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye numéro yaakaar la ci Fass waaye yaakaar la ci làmb tamit boo gisee ni muy compétir ci simple bi et puis bëre bi mu ngi ciy marqué empreinte bu bari fan nga gis carrière am ci làmb. fu sori. fu sore sori laa gis carrière am ci làmb parce que mbër ñaar yi nii bu ko boolee rek pour mu avancer ci làmb day yomb mooy bu fekkee ne da ngaa ñeme mbapati ba pare ñeme làmb euh, lit sa avec frappe bi rek ñaari yooyu boo ko cumulé mën nga sori ci làmb li bon mooy nga ne man lit avec frappe laay def sàggane li nga xam ne moom mooy final parce que final mën naa ne compétition la compétition bi compétition ba nga fay amee doo ko amee ci lutte avec frappe bi ba nga fay amee la nga fay jàngi ci bëre doo ko amee ci lutte avec frappe bi donc mbër mbër mi lay mi lay gën a fréquenté lutte sans frappe bi moo la gën a mandi ci bëre te mbër mu mel noonu bu ko faas amee nga xam ne dafa mandi ci bëre chaque jour mu ngi bëre mu ngi compétir mu ngi taseeg ay moroomam di leen daan di taseeg ay magam di leen daan di taseeg ñoo xamante ni ay rakkam lañ di leen daan kooku ci lutte avec frappe bi pour nga indil ko ci ay problème lu jafe lay doon parce que dama seetlu moom saa yu daanee sama papa Moustapha Gueye lay wax ndax jël dugal ko ci këram mu dëkk ak këram di yeewoo yeewoo ak moom di añandoo ak moom di ndékkandoo ak moom di def lépp kon looloo lay wan ne am na yaakaar boo xam ne Fass am nañ ko ci moom waaye rawatina papaam bi nga xamante ne mooy Moustapha Gueye dafa mel ni fi Moustapha Gueye tegoon tànkam fa la bëgg xale bi di Serigne Ndiaye numéro 2 teg fa tànkam. waaw loolu technicien bu ci nekk loolu ngay bëgg. nit ku ci nekk tey boo sañoon boo jógee am ku la wutu. Hmm. mais gis nañ Moustapha ku mel ni moom faat ci Fass. ñu wax côté dee ku mel ni Moustapha Gueye mm. dafa faat ci face mm. mais tey ku mel ni Serigne Ndiaye nga xam ne Moustapha Gueye récupéré na ko mm. am li muy def ci moom li nekkoon ci moom mu bëgg koo transféré ci moom ba bi mu nekk mu ba bu mu bokk ci ñi fi mën donc loolu liggéey la boo xam ne Moustapha Gueye mu ngi ko waral ndax bu amutoon talent bu nekk ci Serigne Ndiaye bu amutoon gëm-gëm bu nekk ci moom mel ni Serigne. Hmm. xalaatu ko donc am na lu mu gis ci moom am na lu mu yaakaar ci moom te moom aussi mën naa ne décevoir Moustapha Gueye hmm. parce que mu ngi ci mu ngi yoon wi hmm. Moustapha Gueye moo may defal lépp tey nga ñëw jël final barki Demba Ndiaye tey nga ñëwaat jëlaat final donc loolu day wane ne yaa ci yoon wa te xoolal technique bi nga xam ne moom la daane pakala dafa jaayante moom doole def ko yi fi xale won ko ne man maa la ëpp doole. surtout ni mu ko bësuloo pakala rëpp kaat appi mu daw ko ndomba nga équilibré wu na ba pare dara desatu fa bi mu ñëwee daa tëdd ci kawam rek mu daan ci kawam mu jeex parce que euh, li mag booy bëreeg moom hmm. li ngay njëkk a def mooy naa ko jaay sama doole balaa expérience ñëw bu ma ko sonalee du tal a génne expérience hmm. mais ko bàyyi boo ko bàyyee mu dal day génne li nekk ci boppam te bu boobaa mën naa fataal ci yow hmm. mais gis nañ li Serigne Ndiaye bëree vraiment mu nekk mbër moo xam ne am nañ yaakaar ci moom mais dama ne bàyyi jiili lamb ji ku ci bëgg am dara da nga toj mbapat yi ñëw ci lit avec bi taxaw seetlu ci pakala mi mu daan final sëñ Bas pakala ni mu mel ci bëre dóor bi am problème ay adversaire am lépp ñëw duggaat ci lutte simple bi xale yi nga xamante ne ñëpp moo leen jiitu ci làmb moo leen mag moo leen jiitu ci làmb moo leen njëkk a bëre ba pare ñëwaat di compétir ak ay rakkam ay jarbaatam ay moromam aussi lan nga koy wax. waaw li ma li ma koy wax di ko encourager. Hmm. di ko encourager parce que du lu yomb. ndax am na benn niveau boo xam ne mbër day jàpp ne bu fa àggee rek waratu ta takk bu dem ci mbapat yi na ci mbër yoo xam ne tey boo leen bëggoon a dugaloo ci final yi dañuy lànk parce que xam nañ ne boo yañ fay fekk ëppuñ leen doole dàquñ leen a bëre gënuñ leen a osé mais pakale li mu def nii dama naan acte de bravoure la day wane ne moom njàmbaar dëgg mu ngi ci moom day wane ne fit dëgg mu ngi ci moom parce que nga toll benn niveau bi mënoo am adversaire ci lutte avec frappe nga ne damay delluwaat ci mbapat yi damay delluwaat ci galaay dem mu fekk fa samay samay rak samay moroomi jarbaat jëflanteeg ñoom wal nee ne leen la li nekkoon ci moom mu ngi ci moom ba léegi loolu mbër mu njàmbaari dëgg moo koy def fan la jëm ci làmb bëre dóor en tant que pakala di marqué ay empreinte am ci làmb lu bari mu di ko def ci làmb lan moo tax mbëru dóor yi di ko ragal wala ñu koy daw wala ñu koy teggi waaw léegi la léegi làmb moom xàllub yoon la euh, mën naa ne àll la boo xamante ni ku ci nekk boo xëyee da nga yor sa gopp di xool fan laay xàll fu ma mën a jaar ba demal sama bopp donc bu tànn amee rek teggi am te bu teggi amee nag ñi war a bëre du ñu bëre te li waral lii mooy li ñu war a bëre ñoo bërewut moo tax tey ngay dégg ay mbër naan la dama am problème adversaire mbër moo dékk micro mu ne la dama am problème adversaire yóbbu nañ samay avance ci diw diw diw ñu bañ ko est-ce que mën nañoo bañ mbër yëpp bu fekkee dañoo bañ mbër yëpp ana ana ñan ñooy bañ mbër yëpp kon mbër yëpp ay kon mbër yëpp la ñuy jox seeni i avance ñuy bañ mbër yëpp la ñuy joxe seeni avance ñuy bañ aussi hmm. donc bañante bi boo xoolee ku ci nekk da ngaa tànn saw yoon ñii dinaa bëre ñoom ñii duma ma bëre ñoom te bu loolu amee ku ci nekk da ngay am ay problème ci làmb ji hmm. mais Pakala xaarul lutte avec frappe bi hmm. xaaratu ko parce que lii muy def nii semaine bu ne mu dem bëre ji dinga am compétition dinga am weccet donc boo fi nekkee di xaar ay combat yu duré 4 5 mois pour ñu fay la benn million boo xamante ni da da ngay jël xaaj bi yëpp def ko ci lamb ji wala lépp nga def ko ci lamb ji mm. bu pertement day ñëw mais fi mu nekk nii mu ngi compétir mu ngi gañe wecc itam mm. bàyyi ji li lii man jaral maa takki ngemb waaw kon mbër yi nga xamante ne ñu ngi ci seen kër yi toog di xaar bëre dóor lamb moom fo rek ku daanu am gàcce ku daanu rus waaye tamit lii paka la def Serigne Ndiaye numéro 2 gis nañ fi yeneen champion ku ci mel ne Obali ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi fiy daje mbokk yi yéen loolu lañ leen tàggoo ci li nga xamante ni tàggoo booy moo bu dul tàqalikoo mhm. man ak sama xarit sama rak sama doom day sama mag sama lijaay sama lépp <laughs> muy sëñ Basiirou sama famille <laughs> kon ñu ngi ñu ngi tàggatoo foofu cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel saa su nekk yéen ñi safoo wasaare làmb nga xam ne lu ñu def neex na leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm te di wax ñeneen ñi nañu ñëw abonné leen ci seen bi ndax affaire yi dañuy ñëw ak lu bees tàq saison bi ubbi na te il faut ñu ubbi lu bees te buñ ñu ubbee lu bees dañoo bëgg fu ngeen toll affaire di leen dal da ngeen di abonné cloche boobu nekk ci wet gi ngeen daal di koy laal euh, bu ngeen ko laalee Etienne nee na. nopp yi <laughs> nopp yi dinañ firéeku bu ñu firéekoo rek dana leen woon ne saa yu ngeen te vidéo wala saa yu ñu dugalatee vidéo da ngeen ci jot ak fu ngeen mën di nekk ci àdduna bi kon gars yi fii la dama ne. dax bi fii lay ruyee. dax bi fii lay ruyee ko wolof daf ne yi jën ndox doolay waykat public waaye doole internet kon ñun suñu mbokki internet yi nga xamante ne ñoom ñooy abonné. seen doole la kon wasaare làmb seen wasaare la wasaare yëpp seen wasaare la waaye rawatina wasaare lamb <laughs> kon gars yi. jàpp leen ko foofu rek di ko cliquer foofu. di ko ma dóor bala sama doom day sëñ Basir jaajëf. asalaamaaleykum senegal man la wuli wuli waat dama ne.